jamono jii nga xamante ni ñi ngi wàcc li nga xamante ni mooy coupe du monde bi ay weer yu néew kepp dal di ciy des jamono jooju nag ay réeroo mi ngi am ci biir fi nga xamante ni mooy équipe de France ki nga xamante ni nag raq la ci ki nga xamante ni mooy Paul Pogba moo rek daal di yëkkati ay kàddu ba sax daal di xam ne ni magam jooju di Pogba dafa rek dem ci ab sëriñ ngir daal di liggéey ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé ba loolu sax moo waral yenn penalti yi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko kii di Mbappé di ko raté ginnaaw nag coow li nga xamante ni jot na juddu si loolu ba am ay werante yu ci am moom baa sax nangu na ni ginnaaw bi muy dajee ak ñi nga xamante ni ñooy enquêteurs yi nangu na ni daal demoon na ci li nga xamante ni mooy ab sëriñ waaye nag demu fa woon ngir rek daal di sàqal pexe kii di Kylian mbappe waaye dafa demoon ngir daal di aar boppam ki nga xamante ni nag mooy Kylian Mbappé moom. mu ngi daal di rek menacer ki nga xamante ni mooy Paul Pogba xam le ni daal bu fekkente ni li freeram bi daal di wax dëgg la moom rek dina daal di topp kii di Pogba ci yoon mu mel ni nag laata coupe du monde di door daañu xam ana mbir mi fan la nar a mujj.